salaamaaleykum wa rahmatullah association internationale Thierno Moulé Sow man la Ousmane si sama ruusi waaw à travers TMS TV maa doon ñëw def benn vidéo sensibilisation waaw di woon ne maa ngi si Paris benn département bu ñuy wax 77 euh, Pot-au-Combo mi ngi noonu kenn nekkul si mbedd bi ñu respecté confinement yi sëñ bi joxe maanaam. conseil bu mu mën a joxe ñu ubbi téere alxuraan yi maasallaaw di def ay ñaan di liir wax dëgg yàlla dina si am solo waaw di leen sant di leen gërëm waaw di leen jox seen ñëpp seen wàccuwaay jërë ngeen jëf macha allah. asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu waaw waa Sénégal man la Fatoumata Dieng maa ngi dëkk nekk fii itali waa dëkk bu ñuy wax euh, Porto d'Ascoli Sabaneto del Tronto waaw maa ngi wax waa Sénégal ginnaaw ma sante yàlla julli si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam sant suñu sëriñ sëriñ Thierno mu lay saw ñu ngi lay ziar bu baax di la sa wàccuwaay waa di wax rek euh, Sénégal dama bëgg ngeen toog seen kër yi Ah, ngeen kër yi waaw ngeen toog seen kër yi ndax fii eh, fii kenn benn dëkk benn doxul benn dogg sax xara sax ma wane loon leen ko gis ngeen fii dëkk baa ngi nii gis ngeen mi ngi nii kenn ngay gis te dafa am lu muy doxi gis nga dëkk baa ngi nii selaw waaw mi ngi nii waaw may wax rek ñëwaat man yi ngeen toog seen kër yi bañ a génn sart bi ñu wax ngeen def ko waaw may wax rek euh, gouvernement bi nañuy dimbali néew di doole yi nga xam ne ñu ngi si biir kër yi amuñu dara lu ñu lekk dëgg yàlla ñi nga xam ne dañ doon xëy dem di liggéey di daan seen doole si suma jigéen ñi nga xam ne yaakaaruñu kenn ku yàlla ak bi ku dul seen doole ñoo am seen jëkkër yi demewuñu noonu bëgg gouvernement bi génn dimbali leen Marème Faye Sall ngir dimbali leen ngir yàlla te yàlla tax ndax euh, am na ñoo xam dañuy xëy euh, fajar cinq heures matin waaw di dem si géej gi ñi di dem si marché yi hmm? ñii di dem di wut li ñuy jaay di pour seen njaboot yi ngir yàlla unité bi gouvernement bi dama bëgg ngeen jàpp ngeen jàppale leen te yàlla tax waaw may wax nag euh, ku si génn. duggaat balaa ngay def dara na nga raxasu ba set ak saabu désinfecté sa loxo say dàll nga jël ko raxas ba mu set désinfecté ko teg ko benn côté ndax ñun suñu Italie gii ñu ngeen fii ñu ngi nii man damaa fit sax génn dama sax dama doon tuur mbalit ma ne xaaral naa génn waaw ma pare fit si ma wax li may wax waaw fii gis ngeen doo leen gis kenn kenn kenn dëkk baa ngi nii ma wane waat ko waaw gis ngeen mbedd maa ngi nii tali baa ngi nii tali baa ngi nii waaw ngeen. fii fii ñu gis kenn ngi nii kenn kenn gis ngeen mu ngi nii dëkk baa ngi nii ngi nii mu ngi nii waaw ma tur sama mbal mi sax su ko wóorul mhm. bëgg na comme li doon wax rek waaw gis nga waaye tur mbal waaw kon ma ne woon rek euh, naka yónnee TMS TV waaw ñu gis waaw ñu gis lii ñu ngi maa ngi nii damay dem ñibbi sama kër parce que dama ragal sax man maa ngi nii dem waaw sarte daal lu ñuy wax dañuy toog si biir kër yi waaw wala ko si dem liggéey ah bu dee yaa ngi liggéey nga nga lii daal nga liggéey wàcc dem gaawantu dugg sa kër boo demee nga rax su ba set waaw macha allah maa ngi sant ñëpp waa Sénégal. maa ngi sant suñu sëriñ sëriñ Thierno Moule Sow ñu ngi lay ziar bu baax a baax a baax a baax man la Fatoumata Dieng Moule waaw maa ngi fii dëkk bu ñuy wax Samana Detto del Tronto Porto d'Ascoli fa laa nekk macha allah jërë ngeen jëf. waaw salaamaaleykum wa rahmatullahi daarulaay association internationale Thierno Moule Sow waaw man la Ousmane Samsi Samourousi maa ngi leen di nuyu à travers TMS TV di doon def benn vidéo sensibilisation. waaw comme sunu sëriñ bi Thierno Mouleye Sow moom moo joxe ndigal na bu kenn génn macha allah mooy wane nii rek à sama fenêtre bi macha allah gis nga mbedd maa ngi nii kenn nekku fi vraiment oto jàll di dem di ñëw rek ngeen di gis dëkk bi wéet macha allah conseil bu mu mën a joxe man tamit mooy na nit ñi ubbi tamit téere alxuraan yi macha allah di jàng waaw di jàng alxuraan di ñaan yàlla def. Sénégal jàmm waaw à travers chaîne TMS TV waaw moo doon bàyyi euh, vidéo bi di leen sant di leen gërëm salaamaaleykum